ana Mbayang Diop du moom fii la ñëw benn rabatteur piégé ko waaw na nga ñëw ñoom dañuy soxla ay mbindaan dégg nga dégg nga soxla tam euh, ci wàllu babysitting ñu leen di gardel ay liir ah euh, tey tamit am na des personnes de troisième âge ñu bëgg ku leen di toppatoo Mbayang dem waaw léegi ñu ne ñu xëy rek ak Mbayang ni mu baaxee bokk famille bu baax di ku lawet ku am jom ñu jékki-jékki ñu ne Mbayang police jàpp na ko yóbbu nañ ko tribunal ñu ngi koy waaj a jugé bu moytul sax maare day taal ñu condamné ko à mort yalla na yalla musal parce que fofu le crime de sang est condamné de mort mom la nar yi tuddee khadlul hamdi ñu di ko wax ci wolof ray nit bu and ak tayef dans le droit positif sénégalais ñu di ko wax euh, homicide volontaire avec préméditation lolu Arabie Saoudite peine de mort rek la c'est ça qui guette mais jusque-là on se limite à dire que Mbayang dafa un patron waaye lan patron def ba mu rey ko doo leen ko wax dossier Dubaï bi dossier parce que mine de rien elle est en prison depuis 2016 c'est injuste